mbokki internetu seen acti tv ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen wax ni rek dal leen ak jàmm fii ci seen chaîne youtube tey nag di altine fukki fan juróom ci weerum août atum 2022 dañuy ñëw ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi niki tey dinañ ko door foofee ca Kébémer ak tegu bu xeer bu njëkk ci hôpital bu yees boobee ki nga xam ni nag moo di bu siiw bi di gi ci Dieng jot na génn ci lu tollook ñeent ñetti ci ñu ay koppar fas yéene ko def ci hôpital bu yees boobee foofee ca Kébémer ay commerçant nag yu mer ba futu foofee ca diwaanu Ndakaaru ñoo taxaw temme di araftu njiit yi rawatina ki nga xam ni moo jiite meri bu saytu boobee marché lu ni mel nag mi ngi xewee foofee ca Colobane ñoom nag li leen metti moo di doxalin bi kërub Colobane bëgg amee ci saytu marché boobe jafe-jafe tiis ak njàkkare mu am ci liggéeykat topp ak ñi feebar foofee ci hôpitalu Aristide Le Dantec gannaaw bu ko njiitu réew mi tëjee pour amal fa ab liggéey bu yees ba tax na ñii di liggéeykat yi ak ñi nga xam ni dañoo feebar doon fa fajoo ñu ngi yuuxub wallu di ñaan nguurub Sénégal mu dimbali leen ba ko ci nekk xam nu muy def ak fi muy teg tànkam Touba la xewee ginnaaw ba fa féministe bu mag bi demee di Gabriela Kane na fa dem amal fa li nga xam ne moo di ab ziyaar moom nag di Gabriella Kane yóbbaale na ay jumtukaay yu jëm ci hôpital boobee di Seexul Xadim ak xaalis bu takku bu ëpp téeméer si million daat ko jox ki nga xam ni moo di xalif général bu murit yi défenseuru Sénégal bi ne woon foofee ca Italie ñu gën koo xam ci Kalidou Koulibaly di ab joueur si équipe boobee di Chelsea amal na bi bu njëkkam si ubbi tey match yi li ni mel nag mbuur la xewee gannaaw bu hôpital bu mbuur boobee jotee am ab lakk mu jugee ci ab court-circuit wi jot nañ ko teel a gis nag ba daldi di ko saafaral ba jotul lor te indiwul loraange ci bilay hôpital ñu dem Casamance ginnaaw ba fa armée bu Sénégal amalee fa woon ab liggéey jëmale ko ci rebel yi ñoom nag di militaires yi jot nañu tekk loxo rebel yi doon gor garab ci àll ba Casamance bi ak ñi doon bay li nga xam ni moo di yàmba kawteef foofee ca mbëbës gannaaw ab liir bu ñu fa sànni foofee sa tuurukaay mbalit bu mbëbës boobee li ni mel nag ak yàqub ëmb nemmeeku nañ ko bu baax a baax fii ci Sénégal rawatina ci capitalu Ndakaaru ba tax na kuréel ya koy saytu ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax li ni mel nag mi ngi xewee foofee ca géejawaay dox si diggante ñaari mbër yi di guy gi ak bu site ginnaaw nag ba bu site tooñee guy gi dem na jéggalu ko di ñaan rek ki nga xam ni moo di guy àq ba ki nga xam ni moo di mbërëb géejawaay bi di guy gi baalu na ko àq te di xamle ni rek jàmm dong mooy am te mooy woy ci digganteem bu Siteu gannaaw ba ñu ko jàppee ci coowal l'observateur ba dal di ko yóbbu foofee ci nungu seen moom mi nag di facebooker bu mag boobee di papito kara ba tey moo ngi si loxale yoon ba tax na kile di magam bu jigéen boobee mi ngi xamle ni rek yoon ak askanub senegal que bu ñu génnewul kookee di raqam boobee di papitoo kara boppam ci bu yàggul dara ginnaaw ay wax yu ñu déggoon mu jóge ci Senelec jëm ci aéroport bu Sénégal ñu gën koo xam ci AIBD ci ab bor bu tollook ci juróomi milliard bu waa AIBD amal la ñooñee di Senelec waa aéroport boobu nag génn nañ di xam ne nag li ni mel moom amul te amlewul ba tey dañuy des ci xibaar yi ki nga xam ni moo di Wally Seck di artiste bu mag boobee gannaaw accident boobu mu amaloon foofee foofee ca Casablanca ca Maroc mi ngi sant yàlla bu baax ndax euh, mi ngi xamle ni rek tane na te dina amal ab tournée bu yàggul dara foofee ca Espagne. xar yi nag dinañ ko ndar képpeel ak euh, tiis ginnaaw ba nga xam ni kile di défenseur bu mag boobee di Youssouf Sabali di défenseur bu euh, Sénégal moo amee ab gaañu gaañu ba tax na fi ñu tollu tembee ñu ngi laam-laamee ba xam dina mën a jouer match yu njëkk yi lii lañ leen indiloon ci li gën fës ci xibaar yi leen jox dig daje ëllëg waaye laata loolu wéyal leen di abone te bu leen fàtte appuyé wu ci cloche bi pour di am suñu ay vidéo